assemblée nationale ñu tàmbali fa li nga xamante ni moom mooy vote budgétaire yi boobu ba léegi ay bés yu jot ñuy faral di dégg ay kàddu yu tegginewul yoo xamante ne kenn ci askan bi xaaru ko woon ci yooyee kilifa fii ci université Cheikh Anta bu Ndakaaru ñii di étudiants yi fare ci fac droit di naqarlu bu baax a baax yooyee kàddu di xamle foofee ca pencum ndaw réew ya député yi nga xamante ni dañ leen fal daal di leen fay teg li ñuy xaar ci ñoom mooy nag ñu safara jafe-jafe askan bi. bon mu nekk loo xam ne ñun ñëpp dañ koy naqarlu parce que tamit euh, mën nañ ne député son les représentants du peuple maanaam ñooy teewal askan wi donc ñooñu bu nekkee assemblée nationale image bi ñuy joxe foofu moom la ñuy attribuer askan wi parce que askan bi moo leen choisir. donc mun fa nekkee di xuloo di xiiroo ko ŋaayoo loolu nekkul lu dul loo xam ne maanaam ñun mënuñu ko jël ci lu dul maanaam genre déception lañ am ci ñoom bon taxawaayu député li mu war a nekk lenn la maanaam un député c'est un représentant du peuple parce que askan nga fa teewal donc intérêt askan woowu noonu moom nga war a porter à l'Assemblée nationale ñoom seen xuloo yooyu sax bu doon dañuy ci mbir yoo xam ne dafa ñor askan wi à la rigueur mais ay mbiru parti la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy xuloo te pour man maanaam patrie bi nga war a jiital avant le parti quoi mais waroo a nekk di xeexal ay nit au moment où bi nga fàtte seen i seen i seen i seen i seen ñaxtu ak seen i mbébét pour plaire à quelque pour que beneen législature ñu conduire la yow nga nekk foofu di def loo xam ne pour neexal nit la loolu moom dañ koy ñaawlu. nu ñu gisee comportement yenn député yi nekk au niveau de l'Assemblée nationale dafa am loo xam ne dañ ko ciy ñaawlu parce que bu ñu nekkee séance nekk plénière yaakaar naa député yëpp dañoo war a concentré wu xool budget bi nu ñu koy orienté ba xool lan mooy problème Sénégal ñu voté ko mais pas ñu nekk Assemblée nationale kenn ku ci nekk di nekk ay député de parti kenn ku ci nekk di xuloo di ŋaayoo ngir kilifa yóbbu. loolu rafetul rafetlu wuñ ko parce que ku ci nekk député bu ne dafa am localité boo jógee li ñu lay laaj mooy lan moo yàqu ak ban manquement moo am ci localité yooyu nga bind ko tënk ko su ministre yi ñëwee di passer au niveau de l'Assemblée nationale nga jox leen ay leen ay orientation su ko defee nga mën fa nekkal député du peuple et non député du parti vraiment attitude yooyu dañ koy ñaawal bu baax a baax a baax a baax a baax bon député yi li war a nekk seen taxawaay ci assemblée national mooy li ma wax sànq rek kenn ku ci nekk na nga jàpp ne localité bi nga dëkk wala département bi nga dëkk ak nu Sénégal tool dañ fay tànn ñaari député jël fa benn góor jël fa benn jigéen pour nga teewal département bi bépp kon bépp commune bu nekk ci département da war a dem xam lan mooy problème am njàm muy njàmbat bu dee problème mu ndox la nga bind su dee problème mu jàng la nga bind bu dee problème mu koom-koom la nga bind ministère bu mu concerné su jaalee na nationale nga ne ko man dëkk ba ma dëkk nangam lii mooy sunu problème lii mooy suñ problème moom bu ko defee mu préparé ko ñu voté ko ci budget bi ñu mun leen jàppale saagante beeg xiiroo beeg ngaayo mun naa ñàkk assemblée nationale te dañuy rafetlu aussi taxawaayu yenn député yi nga xam ne ni tey dañuy xam nañ lan moo leen yóbbu foofu noonu lan moo leen yóbbu foofu noonu kenn waru fa nekkal parti politique askan wi dong nga fa war a nekkal. moo de toutes les façons ñun ñu ngi apprécier liggéey bi nga xam ne assemblée mi ngi koy def parce que réalité ñoom ñoo fi toogal réew mi moo tax ñu leen di woowee doomu ndaw réew donc ñu ngi liggéey bu baax a baax a baax di représenter donc loolu mooy seen fonction bi nga xam ne mooy fonction primordiale. comportement bi mooy approche bi nga xam moom la war a jël muy approche comportementale loolu nag c'est personnel parce que un représentant comme que dañoo nekk ci régime boo xam ni régime représentatif la donc un député se doit d'avoir un bon comportement un comportement qui légitime euh, la vision comportementale de la population donc ñun li ñu gis mooy responsabilité ñu la ko joxee doo ko délégué. da nga koy assumer et ce qu'ils font là cela représente le bas peuple donc assemblée du arène nationale assemblée du fu ñuy bëree assemblée du fu ñuy wane humour assemblée pour représenter population la pour voter budget la pour maanaam toogal fa ay nit ñoo xam ni la amuñu baat donc boo koy def da nga ko war a def avec responsabilité pour que ñeneen ñi bañ ñoo yey député dafa nekk loo xamante ne nii lu am njëriñ la si biir réew parce que dañu nekk ay nit yoo xamante ne nii askan bi lañ fi toogal te lépp loo xamante ne nii si si la ñuy dox rek dafa war a nekk loo xam ni lu dëppoog li askan bi bëgg la donc foofu ñu nekk lépp luñ fay doxee dafa war a nekk image boo xamante ni dafa war a am aspect après sanction bu positive si société bi parce que bu ñu population bi génnee ne loi bi ñu voté waruñu ko voté parce que lii dëppowul ak li société bi bëgg dañoo war a xam ne ña ko voté moom mooy ñi représenté woon askan bi sa assemblée te dañ koo def ñu jàpp ne rek ñoom seen baat mooy baatu askan bi donc lépp luñ fay voté dañ ko war a def ci si jub maanaam li li ñuy wax de bonne fois mais également dañu war a nekk ñoo xamante ne dañuy comporté wu de telle sorte que xale boo jël di ko wax kuy jàng nii lay mel intellectuel nii lay mel nu mu war a comporté woo rek boobaa du am benn xalaat bu négative naan pourtant ñi nekk assemblée dañuy wax jàng nañu wala def nañu ni mais xoolal ñi ngi fi nekk di xuloo di xeex et cetera finalement danaan est ce que sax jàng sax bokk na si lii éduquer nit affaire yu demee noonu donc nekk na loo xamante ne nii lu ñuy ñaawlu la dañoo war a xam ne ay kilifa lañu. te dafa am ñu topp seen ginnaaw di leen xool bëgg sax yegg foofu ñu yegg donc lépp loo xamante ne ni lu ñu fay def la rek dafa war a nekk lu positif waaye warul nekk lu négatif.